sa euh, en tant que cette fois si euh, présidente li nga xamante ne euh, moom mooy peut-être futur parti bi ñuy bi ñuy xaar wala leader futur parti bi ñuy xaar da nga diriger waat cette fois-ci dañ la dénk beneen campagne muy celle des législatives toujours ak sa parti muy fi nga xamante ne moom mooy APR bi ngay def campagne bi est-ce que euh, PM xalaatoon nga peut-être jamono ji ñàkk déggoo dina am yow ak sa càmmiñ waaw mais àddina yi demee noonu ah da nga ciy dem rek ak mooy li ma la wax bu ñu la joxee responsabilité da nga ci dem ba jeex li xale man loolooy sama personnalité noonu la ma yàlla bindee donc euh, foo dem rek da ngay da nga ci dem à cent l'heure à fond pour bëgg rek indi ndab dama dama dama bëgg di am ndam voilà donc euh, noonu noonu laa ko gisee après bon comme politique aussi da ngay xam ne dara wóorul voilà euh, mais comme man aussi bon euh, euh, man lu ma lu ñu jàpp rek bu ñu waxee ba jàpp ba tënk rek man loolu lay jàpp voilà luy luy luy dëñ du doon ci man loolu it noonu lañ ma yare aussi mhm. lañ ma yare ne sa kàddu boo ko joxee deewal ca sa fa fa nga bàyyi sa kàddu loolu laa xam donc da ngay dal di dem voilà dem ba jeex kon pour yow war dafa am aw ah, waaw ok amul amul amul amul beneen nuñ koy tuddee mais comme mooy njiitu réew mi du ma ko du ma ko waxee noonu euh, mais li nu li nu li nu li moom xam na ko bon loolu amul mais pour man ma nga sama ginnaaw bu yàgg yàgg yàgg. d'accord. ya bo loolu loolu moom xanaa toog di waxtaan ak yow nii rek sax a tax ma ci ma ciy ñëwaat mais boobu da di da di livre boo xam ne tëj naa ko bu yàgg yàgg na yàgg na jàll ci leneen nag bien que yàggul parce que six mois ci ginnaaw rek la woon. Mhm. mais da ngay jàll ci beneen ci beneen étape ci sa ci sa dund. et puis et puis voilà sans sans aucun regret aussi.